sëriñ ndaam abdourahmaan loo sëriñ ndaam abdourahmaan loo mi ngi gane àdduna ci atum 1854 ci dëkk boobu di Mewnu Jaxate Mewnu Jaxate mi ngi ci wetu dëkk bii di mbaakool ci suuf si di kajoor sëriñ ndaam abdourahmaan loo doomu soxna mareema sekk la ak kii di maam madun loo am na ñaar ñu mu bokkal kii di maam madun loo ak kii di soxna mareema sekk ñu ràññee ci ku ñuy wax soxna faramata loo ak kii di soxna asta loo ginnaaw bu maam madun loo génnee lii di àdduna foboon nañ soxna soo soosi di soxna mareema sekk mi waajuru sëriñ ndaam daam abdourahmaan loo jébbal ko ku ñuy wax sëriñ masata jaxate am na kii di soxna mareema sekk lu tolloog ñetti bant ñetti ñu góor lañ laataa ñuy samp lii di kër dañoo génn lii di àdduna sëriñ daam abdourahmaan loo juróom la bokkal waajur wu jigéen ak moom muy juróom benn ñaar ñi ñoo bokk waajur wu góor ak waajur wu jigéen ñett ñi waajur wu jigéen dong lañu bokk bi matee dal lii di alxuraanul karim moom sëriñ daam abdourahmaan loo ci atu waajuram di sëriñ madun loo la jànge lii di alxuraanul karim ma génn léegi àdduna ñu jox ko sëriñ masata jaxate ci Mewnu ginnaaw nu dem na ci dëkk bii di kër ma Madieng Fallo ci sëriñ Madieng faaloo ginnaaw foofu itam dem na Njiig Faal ci sëriñ Njiig Faal foofa nag la dégg daaray Mbàkke Kajoor jooju nga xam ne ni Mamor Anta Sali moo ko taxawal dem na fa doon jàng ji lii di xam-xam sëriñ ndam Abdourahmane Lo def na fa ab diir ci daara jooju di Mbàkke Kajoor waaye Mamor Anta Sali xam ne ne jëmm ji daal wuute nag ñim doon jàngal ci wàllu melokaan ak lii di doxalin na ngir sëñ daam abdourahmaan loo di jàngale ba foboon na sax lii de ak njabootam jox ko ko ñu ràññee ci maam cheikh anta mbàkke borom dërëm ak ngërëm sëriñ cheikh coro mbàkke ak kii di sëriñ balla coro mbàkke sëriñ daam abdourahmaan loo wéy na di jàngale foofu ci daara ja ba ni maamoor anta sali mbàkke génnee àdduna ci atum 1882 sëriñ tubaa seexul xaddim wéyal daara ja doonnu kii di maamoor anta sali ab diir la ca teg sëriñ tubaa seexul xaddim def déclaration boobu mu defoon doon wax ne képp koo xam ne nii jàng rek daa seeti waneen yoon ndax moom kat gis na ne am na waneen yoon woo xam ne nii bu wuuteeg jàng ak jàngale bi mu taxawal wala bu wuuteeg jàng ak jàngale bi ñëpp gën a miin sëriñ daam abdourahmaan loo amul woon lenn lu muy sëkki sàkk ci waxe ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim moom itam daa bàyyi lépp lu mu doon def jaayante ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim foofu ci mbàkke kajoor ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim wéy di taxawal lii di yoonu murit amal na fi ay tukki yu bari ci biir réew mi waaye diirub tukki yooyu sëriñ daam abdourahmaan ba ni sëriñ Touba Seexul Xadim jógee Mbàkke Kajoor ñëw di sant si lii di dëkk bu sell bii di Touba ak lii di Daaru Salaam laataa Touba ak Daaru Salaam sëriñ Touba Seexul Xadim amoon na fi ab tukki ci réew mi di gànnaar ci diirub lu tollook juróom benn weer yàlla juróom benn weer yooyu sëriñ Daam Abdourahmaan loo la dénkoon daara ji ci Mbàkke Kajoor ba ni sëriñ Touba Seexul Xadim del siwaate ñëw sanc nag dëkk bii di Daaru Salaam keroog bi ñuy sanc dëkk bii di Daaru Salaam sëriñ Daam Abdourahmaan Lo ci ñi ko doon sanc ci la bokk am na benn bis sax foofu ci Daaru Salaam sëriñ tuubaa seexul xadim doon leen sàkketloo am ñenn ci mag ñi ñu doon kekkantoo kii di sëriñ daam abdourahmaan di ko wax ne damal moo gën nga nekk fii di sàkket kàddu yooyu bi ko ku baax ki sëriñ tuubaa seexul xadim déggee woolu woon na kii di sëriñ daam abdourahmaan loo di ko wax ne damal def li ma la sant ñooñu di la ŋàññ da nga leen raw ba faw sëriñ tuubaa seexul xadim sañcaat fi dëkk bii di tuubaa sëriñ daam abdourahmaan loo bokkoon na ci ñu doon sanc dëkk boobu di tuubaa ginnaaw tuubaa sëriñ tuubaa seexul xadim taxawaloon na fi lii di daara mu ñeenti daara yu wër lii di Touba sëriñ Daam Abdourahmane Lo moo yoroon jenn daara ji muy daara ji féete penku foofu sax soo su kër Balla la tuddoon kër Balla googu foofu la sëriñ Daam Abdourahmane Lo yoroon lii daara kër Balla jamono ji nit ñi ndaamaatu lañ ko gën a xamee daara ji moo tolloog fi hôpitalu ndaamaatu bi nekk boo taxawee ci hôpital bi jëm penku am na fu ñuy wax ngelamu foofu ngelamu nekk foofu la daara ji tolloon kër Balla googu li tax ñu koy wax ndamaatu xam ngeen ni ku sant loo ñaare fu mu nekk ak ndaam lañ koy wax loolu rek moo indi turu ndaamaatu ji ji waaye suuf soosu ci cosaan kër Balla la tudd foofu la sëriñ ndaam Abdourahman Lo Murito foofu itam la jotee ngërëmam ci atum 1891 mooy bi Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbàkke feeñee jamono ginnaaw bu sëriñ ndaam Abdourahman Lo lii di ngërëm ci ku baax ki sëriñ Touba Seexul Xaddiim sëriñ mu ndumbe Mbàkke moo ko wuutu ca daara ja sëriñ Touba Seexul Xaddiim jëloon dëkkam bii mu sanc di daaru Halimul Xabiir ñu gën koo xam ci ndaam jébbal ko sëriñ ndaam Abdourahman Lo ci daaru Halimul Xabiir la di kër sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim fob rakkam jébbal ko kii di sëriñ Ndaam Abdourahmane Lo ngir mu dëkkoo ko muy ku ñuy wax soxna Aminta Mbàkke soxna Aminta Mbàkke ak maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke ñoo bokk waajuru góor ak waajuru jigéen soxna Aminta Mbàkke moomu la sëriñ Ndaam Abdourahmane Lo njëkk dëkkoo foofu ci ndaam daaru Xalimul Xabir sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim joxoon na ko ak njabootam ngir mu jàngal leen foofu ci ndaam daaru Xalimul Xabir ñu ràññee ci sëriñ Masamba Mbàkke mi rakku ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Sakho Bousso ak kii di Baye Serigne saar mi doomu Seex Ibrahima saar Njaañ kon ñett ñii la ko Serigne Touba Seexul Xaddim njëkk a jox mu jàngal leen ci ndaam Daaru Halimul Xabiir ab diir lañ ci teg Serigne Touba Seexul Xaddim am fi takk-takk ak kii di maam abduloo ñu yóbbu sëriñ tubaa seexul xaddim ci géej gi keroog bi sëriñ tubaa seexul xaddim di dem ci géej gi sëriñ ndaam abdurahmaan loo foofu ci ndaam daaru xalimul xabir la ko dëeloon di ko wax sëriñ ndaam toog fii ba ma ñibbisi bu la fi dara jëlee noonee ko seexul xaddim waxe woon sëriñ ndaam abdurahmaan loo ni la ko sëriñ ndaam abdurahmaan loo defee ba ni sëriñ tubaa seexul xaddim jógee ci géej gi ci atu seexul xaddim jaar na fi mu jaar fépp ba dikk ci nganuk daaru salaam gi sëriñ ndaam abdurahmaan loo jógewu fi bi seexul xaddim ñëwee ci nganuk daaru salaam gi ci diirub juróom-ñetti fan mag ñëpp ñëw nañ ziyaare si waaye sëriñ ndaam abdurahmaan loo mi ngi woon ci ndaam gii di daaru halimul xabiir jógul dem seeti ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim mag ñi kenn ku nekk commentaire bi mu ci doon def bi sëriñ tubaa seexul xaddim jógee daaru salaam di ñëw ci maam ceerno ibrahima faati ci daaru marnaan la jaar ci ndaam daaru halimul xabiir di laaj sëriñ ndaam abdurahmaan loo lan moo tax ginnaaw bu mu ñibbisee ab tukki ba mag ñëpp ñëw si ko moom fi mu toog jógu fi xanaa da koo nëmmul woon sëriñ ndaam abdurahmaan di ko ne namoon naa la kay waaye mbàkke bi ngay dem ci géej yaa ma wax toogal ci ndaam daaru halimul xabiir te bu fi jóge loolu moo tax itim gisaatuma benn ndigal bu ma wax ne sëriñ ndaam jógeel foofu moo tax itim lu ma la namm namm itim munuma fee jóge ndax yaa ma fi toog loo woon seexul xaddim sant na ko ca loola gërëm ko ca tàgg toog moom daal di ñëw nag daaru marnaan ci ngan gim doon amal ci maam Cerno Ibrahima Faati ab diir la fi def amaat fi takk-takk ak kii di mbaaxaan bi dugg ci ñu yóbbuwaat sëriñ tubaa ci réew moomu lim di dem gànnaar ci histoire boobu mu amoon ak mbaaxaan mbaaxaan daana def saa su ne di sëkkatal ak di bundu xataal kii di ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim ba mag ñu bari daanañ ci jooy saa su ne ngir di tuur seenu rongoñ ci jëf ji mbaaxaan di def ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim loola itam metti woon na kii di sëriñ ndaam abdourahmaan loo ba mu jaral ko mu sol lii di aw dàllam ñëw ci ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim di ko wax ne mbàkke de suñu ma laa wax waaye soo ma mayee ma dénk la ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim nee woon na daam abdourahmaan loo ma ngi doon wax ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim di ko wax ni lu la mbaaxaan bundu xataal bundu xataal lum la sëkkatal sëkkatal bul xool bul tiit bul raf xoolal rek li la suñ boroom sant te nga def ko seexul xaddim nanguloon na sëriñ loolu mu ko wax waaye yëf yi mbaaxaan mujj na fexe ba yóbbu ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim ci réew moomu di gànnaar histoire bii ma leen wax ne su ngeen demee ci jasaawu sàkkoor da ngeen fekk seex musaa ka di ko fa nettali su boobaa dana leen gën a leer atum 1903 ba 1907 sëriñ ndaam abdourahmaan loo demul gànnaar ba tey mi ngi woon rek ci ndigal li ko seexul xaddiim bàyyey loon muy fii di ndaam daaru xalimul xabiir mu nekk di jàngale rek ba tey ndax ndigal lool la ko seexul xaddiim bàyyey loon 1907 1912 seexul xaddiim mi ngi ko ca yéen jolof sëriñ ndaam abdourahmaan loo bu demee ca yéen jolof itam lam fa dem bariwul 1912 njaareem laataa seexul xaddiim di dem njaareem nag jaar na ci dëkk bi di ndaam daaru xalimul xabiir ndax seexul xaddiim dem na ci résidence surveillée foofu ci njaareem bisub ajjuma fukki fan ak ñeent ci weer wi di weeru tamxarit ci atum 1330 ci gàddaay gi ci suba dëppoo woon ak vendredi 5 janvier la seexul xaddim jóge ca yéen jolof jaar ci dëkk bu ñuy wax lumbel ci kër sëriñ Moodu Kebe foofu la seexul xaddim fanaan sax guddik ajjuma googu ba set di samedi 6 janvier 1912 seexul xaddim jóge lumbel kër sëriñ Moodu Kebe foofu la fanaanoon guddik ajjuma googu ba set di samedi mu xëy jaar jolof ci mbàkke baari jolofa ñëw yendu si fii di kàddu bollooji ci bëccëgug samedi googu ci timisug samedi mi ngi ko fekk ci dëkk bii di daaru marnaan seexul xaddim bi muy jóge kàddu bollooji amoon na yéene jaar ci dëkk bu sell bii di tuubaa waaye bu leen fàtti na seexul xaddim ci bi muy génn lii di tuubaa wala bi muy dem ci géej gi mook suñu boroom siñante woon nañu ab contrat suñu borom di ko xamal ne ci diirub li ngay dund dëkk bu sell bii di tuubaa doo ci teg sa tànk bis boo fiy ñëw sa coobare du la fi indi la am kàddu gu foor gu koy wax ne bul fàtte ndigalul suñ boroom li seexul xaddiim dafa mujj dummóoyu ba muur lii di kanam gi ngir bañ a gis dëkk bu sell bii di Tuubaa te mooy dëkk bi mu gën fonk ci ak dundam mu mujj teggi ñëw jullisee timis daaru marnaan fii maam Ceerno Ibrahima fàtti Mbàkke nekkoon ginnaaw bi la yónnee ndaw wax ko ne na dem ndaam daaru xalimul xabiir ngir mu wax ne sëriñ ndaam Abdurahmaan Lo jot na ndigalul suñ boroom ju koy wax dëkk boobu weeru muharram ci atum 1330 ci gàddaay gi dëppoo woon ak samedi 6 janvier 1912 seexul xaddim ñëw ci dëkk boobu di ndaam daaru halimul xabir ci ngan gum fi amal ci sëriñ ndaam abdourahman loo ci diirum ñaari fan muy samedi fukki fan ak juróom ci weeru muharram ak dimanche fukki fan ak juróom benn ci weeru muharram bis boobu sax di guddi gu njëkk gi di fukki fan ak juróom ci weeru muharram moom la njabootug sëriñ ndaam abdourahman loo di fàttaliku ndax guddi googu kat la fa seexul gu njëkk gi di guddi fan ak juróom ca altine ba ju fukki fan ak juróom ñaar ci weeru muharram la fi sëriñ tubaa seexul xaddim xëyee ndaam ngir fa yéene dem njaareem altine jooju moo dëppoo woon ak juróom-ñetti fan ci mois de janvier ci atum 1912 seexul xaddim jaar na ci dëkk bii di ndula yendu fa ci kër chef de canton bu ñu doon wax moo du sow booba moom moo fa nekk chef de canton ginnaaw ndula kër moo du sow di chef de canton seexul xaddim timis la egg lii di njaareem directement kër gouverneur boobu gouverneur bi mi ngi dëkkoon ci école ibrahima coy muy kër dend ak moom foofu la seexul xaddim def fukki weer ak ñett école Ibrahima Coy ci ñu ko xamul bu baax ci njaareem boo jógee fii di dem njaareem boo paasee kër gu mag ci virage bi fi oto yi njëkk a jàdde foofu sax danañ fi wàcc lii di ay client bâtiment boobu taqaloog école Ibrahima Coy foofu la seexul xaddim nekkoon waaye jabaru commandant bi wala jabaru gouverneur bi moo seetlu woon ne daal ñu fay ñëw di seet ci seexul xaddim dafa bari lool te moom dem na ba wóolootul lii di sécurité la bi bi gënal ci njaareem ñu jox ko seexul xaddiim taamu kër gu mag di buqutul mu baraka kon loolu moo ko jële foofu indi ko foofu njaareem googu sëriñ daam abdourahman loo daana fi fekk si ku baax ki sëriñ tuubaa seexul xaddiim heure bu ko soxlaa su paree nag day wéy del siwaat ndaam daaru xalimul xabir ndax kat foofu la ko ku baax ki sëriñ tuubaa seexul xaddiim dël sëriñ daam abdourahman lu nekk ku yéeme ku kiimaane koo xam ni kat deful dara muy dara ndax lépp rek dëgmal ku baax ki sëriñ tuubaa seexul xaddiim jafe-jafe rawatina ñim bokkal xaadim rasuul di ay mbokki taalibeem ba tax na sàkku woon na ci ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim di ko ñaan bépp murid boo xam ni am nga ay jafe-jafe ba bu ëllëgee suñ boroom war laa dugal lii di sawara moom mi ngi doon sàkku boobu natt mu jël ko te suñ boroom may ko kàttanu malaaka bu mu ko mën a jaamoo ba jafe-jafe murit boobee mu man koo teggi moom tegoo ko loolu la diisoon ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim sëriñ tubaa seexul xaddiim ñaar yi de suñ borom may na la ko ndax danga ko koo ñaan benn bi nag danga koo sàkku moom kon nag foo jaar jënd ko suñ borom nag mi ngi may xamal ne foo jaar di naaf guddi gu jot kaamilub alxuraan ngir loolu nga sàkku ci moom nga man caa jot loolu itam sëriñ daam abduraxmaan loo nangu woon na koo sartoo ba daana def ci diirub juróom fukki at ak ñett guddi gu jot kaamilu alxuraan lay naaf ngir yërëm mbooleem jullit yi rawatina taalibey seexul xaddiimi yërmaande googu sëriñ daam abduraxmaan amoon taxoon na nag mu am benn bis benn mbokkum wàllu deretam santu doom lii di loo nekkoon jigéen doon sëy fa mu doon sëyee nag mu wan ne fa lii du lor te fekk kooka du boroom këram soxna soosu ne moom day xaru ndax kat rus na lool askan wi mu bokk di loo gi mu njëkk fee indi doom joo xam ne nii ñu bari dañ koy xeeb loola nag defoon na ko am metti metti ci wàllu xolam bam ne day xaru kooka mujj na xaru ba ñàkk sax lii di bakkanam sëriñ ndaam abdourahmaan loo bi mu ko déggee nekkoon na nag lu ko metti ba tax na mu bindoon leetar ku baax ki sëriñ tuubaa seexul xaddiim daal mujj na génn lii di àdduna ni mu def ba génn àdduna xam naa ne sax du yoon sama mbokkum deret moomu sant loo nag ak njëggal laa soxla ci moom jaarale ko ci yow mii mu dem ci suñu boroom bi sëriñ tuuba seexul xaddim jotee lettre sëriñ daam abdurahmaan loo boobu tontu na ko seexul xaddim ginnaaw bu mu ko nuyoo ziyaar ko di ko wax murit saadex bi yow sëriñ daam abdurahmaan loo lettre bii nga ma bind nag di ci sàkku njëggaluk soxna soosu ginnaaw bu mu faatoo maa ngi lay xamal ne suñu boroom jéggal na ko te yóbbu ko sax ci àjjana yi gën a kawe ci àjjana yi dara nag taxul lu dul suñ borom jéggal ko muy murit saadex gi nga doon ak dëggal gi nga dëggal mu ñeel ma man mii ca loolu ci la suñ sukkandiku ba jéggal soxna soosu bu dul woon saadex gi nga doon ak dëggal gi nga dëggal soxna soosu kenn mënu ko woon a tee dem lii di sawara leetaru tontub sëriñ tubaa seexul xaddiim bi moo nekk nii leetar bi nag sëriñ basiiru mbàkke ibnu sëriñ tubaa seexul xaddiim moo ko joxoon sëriñ mustapha loo ibnu sëriñ daam abdourahman loo di ko wax ne keroog bi nijaay yaayam génnee lii di àdduna moom sëriñ Basiiru Mbàkke di sëriñ Masàmba Xari Jeng ca bagaasam ya la ko gise woon ma nga doon wax sëriñ Mustapha Lo nag jëlal lettre bi sotti ko te delloo ma ko ñu teewlu lettre bi alhamdulillahi wahda wa sallallahu taala ala man la nabiyya ba'da amma ba'da salaami wa tahiyya ayyuha al-muriid as-saadiq Abdurahmaan Lo alfaani fiyya fanaa'i fi llahi tabaraka wa taala wa fi rasulihi alayhi wa alihi wa sahbihi alayhi salaatu wa salaam فالجواب هو أن الله تبارك وتعالى يغفر لها بعد موتها لكونك مريدا فارخا لي لولا ذلك لدخلت النار والعياذ بالله تعالى فليعلم بيت أمك جميعا أن كونك مريدي هو سبب من قسي الدنيا وعصاب الآخرة فطب نفسا وقر عينا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والله على ما نقول وكيل وكتب بيده أحمد بن محمد بن حبيب الله waffaqahu allahu tabaraka wa taala jërëjëf loo ndaam yàlla suñu borom yokk say leer te taas ñu ci sa barke sëriñ ndaam abdourahmaan loo sanc na nag benn dëkk wala lii di daara ñu tudde ko daaru sàkkoor mi ci wetu dëkk bii di tiibug sëriñ basiiru mu wéy di jàng ak di jàngale fi ko sëriñ tubaa seexul xaddim dëyloon di fii di ndaam daaru xalimul xabiir balu takkoo takko ci njabootu ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim jàngal na leen lii di alxuraanul karim ñu ràññee ci cheikh mudul mustapha tubaa seexul xaddiim cheikh mohamadul faadal mbàkke ibnu sëriñ tuuba seexul xaddiim cheikh mamadul bachir mbàkke ibnu sëriñ tuuba seexul xaddiim sëriñ mustapha basiiru mbàkke ibnu sëriñ basiiru mbàkke ibnu sëriñ tuuba seexul xaddiim ndax bi sëriñ mustapha basiiru ji jàng foofu ci ndaam daaru halimul xabiir am na bis sëriñ ndaam abdourahmaan loo di ko wax ne mustapha de war ngaa góorgóorlu bu baax a baax ndax sa waajur wa sëriñ basiiru feer la daa wéer alliwaam ja lii ma leen wax na ku sëriñ mustapha basiiru nettali moo ma ko Moustapha Bassirou jaar na foofu ci ndaam ak ñeneen ak ñeneen ci doomu cheikh yi sëriñ ndaam Abdourahman Lo am na bis ku baax ki sëriñ Touba Seexul Xaddim wooluwaat ko foofu ci njaareem mu ñëw mu di ko jox lii di ab lettre keroog bi ko sëriñ Touba Seexul Xaddim di jox lettre ba moom sëriñ ndaam Abdourahman Lo Seexul Xaddim mi ngi ko doon wax ne lettre bi de suñu boroom tabaaraka wa taala moo la ko bind ne naa ko bindal jox la ko lettre boobu keroog bi ko sëriñ Touba Seexul Xaddim di jox sëriñ ndaam Abdourahman koy wax ne ko suñu boroom de xamal na ma ne lettre bi de bis boo ci tegee sa bët ci mbind mi lépp loo doon sàkku ci moom am nga ko ci wàllu ngërëm te suñ borom mi ngi lay xamal ne diiru boo jotee lettre bi ba keroog ngay génn lii di àdduna mënatoo fee def nag lenn lu ko naqari man mii la jox lettre bi te mënatoo fee def lenn lu ma metti wala lenn lu ma naqari te jurut ngay sikki sàkke ne lépp loo soxla danga ko am ginnaaw boo jotee lii di lettre bi lettre bi nag suñ borom moo la ko bind ne naa la ko jox ñu teewlu lettre bi بعد أما بعد فيا أيها المريد الشارح عبد الرحمن لو متى تقه عينك على هذه الحروف فتيقن بأن كاتبها راد عنك لا سقط بعده أبدا وأنه طالب من الله تبارك وتعالى ما يغبطك في أمثالك فطب نفسا وقف عينا ولا تشك في كون هذا من ربك إليك بواسطته والله على ما نقول وكيل وكفى به شهيدا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وكتبها الفقير إلى مولاه Ahmad ibn Muhammad ibn Habibillah mu nekk ku Serigne Touba doyloo moom Serigne Ndaam Abdourahmane Lo ba taxoon na Serigne Touba Seexul Xaddim foboon na rakam ju bokk ak maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke Ndaamal Daaru waajur wu góor ak waajur wu jigéen joxoon ko ko muy soxna Aminata Mbàkke soxna Aminata Mbàkke moomu sax moo meññ kii di soxna Aminata Lo mi meññi Serigne Mbàkke màddina ak kii di soxna Mariyamu Mbàkke ibnoog bintu mu Mamadul Moustapha Mbàkke soxna Aminata Mbàkke moomu itam moo meññi waajuru soxna Mbeen Mbàkke moom Cheikh Mamadul Faadal Fall Mbàkke moom mi ñiitim waajuru soxna daba moom cheikh mamadul bachir mbàkke ñooñu sëriñ ndaam abdourahman loo mooy seen maam ak soxna musli bu sëñ abdullahi mbàkke boroom dër bi sëriñ ndaam abdourahman loo moom meññi waajuram kon lii di ay sët moom am na ko ci ëttub ku baax ki sëriñ tuuba seexul xaddim moom sëriñ ndaam abdourahman loo ba tey sëriñ tuuba seexul xaddim foboon na doomam jox ko ko mu dëkkoo ko muy soxna jóob mbàkke ba am na kii di sëriñ ndaam abdourahman loo ñetti bant ñaar a Cheikh Lo ibnu soxna Diop Mbàkke ak sëriñ Ndaam Abdourahman Lo soxna Diop Mbàkke ci atum 1930 la génn lii di àdduna Cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke jëlaatoon baneen doomu sëriñ Touba Seexul Xaddim di rakkam jébbalaat ko sëriñ Ndaam Abdourahman Lo muy soxna Muslim Mbàkke bintu Seexul Xaddim soxna Muslim Mbàkke bintu Seexul Xaddim amoon nag ñetti bant kii di sëriñ Ndaam Abdourahman Lo muy sëriñ Moustapha Lo sëriñ Lamine Lo ak kii di sëriñ Fàllu Lo sëriñ Fàllu Lo dafa teel a génn lii di àdduna sëriñ Lamine Lo 1989 la génn lii di àdduna sëriñ Moustapha Lo 2005 la génn lii di àdduna dëkkoo woon na ñaari doomu seexul xaddiim te loolu yombul dëkk boobu di ndaam daaru xalimul xabir lu bari ci wàllu ndonom yi ngi foofu ci dëkk boobu ndax kat waa barsàq ñi ñi sëriñ Tuubaa seexul xaddiim dëkkoo woon ci wàllu kër am nañ ci dëkk boobu lu tollook ñetti ati suñu boroom ba tax na sax lu bari ci njabootuk sëriñ Tuubaa seexul xaddiim ganee nañ àdduna ci dëkk boobu ñu xayma ko ci ñaar fukki doomu seexul xaddiim ak ñett feeñe nañ jamono ci dëkk boobu di ndaam daaru xalimul xabir lu tolloo fukki doomu seexul xaddim ak juróom ñi ngi ci armeer yi ndaam yooyu tëdd ña fa feeña jamono ci dëkk boobu di ndaam daaru halimul xabir ñu ràññee ci cheikh ibrahima mbàkke ibnu sëriñ tuuba seexul xaddim cheikh abdu xaadir mbàkke ibnu sëriñ tuuba seexul xaddim cheikh murtada mbàkke ibnu sëriñ tuuba seexul xaddim ak soxna mi natu mbàkke bintu sëriñ tuuba seexul xaddim ak ñeneen ak ñeneen ñu takku ci njabootuk sëriñ tuuba seexul xaddim gi ñi nga xam ne nii ñoo tëdd foofu ci armeer yi ndaam ñu man cee ràññee ñuy wax sëriñ abdu muhayminu mbàkke la génnee àdduna waaye sëriñ tuuba seexul xaddim moo waxoon ne nañ ko denc ci armeel yi ndaami ndax suufu suufus njaareem attanu ko ak kii di seydina baabakar mbàkke doomu ko baax ki sëriñ tuuba seexul xaddim la soxna aminata jobbe moo nekkoon waajuróom wu jigéen ak ku ñuy wax soxna tanhiratu mbàkke bintu sëriñ tuuba seexul xaddim ak kii di soxna faati jaxate mook sëriñ tuuba seex saaliwu mbàkke ñoo bokk waajur wu jigéen ak ku ñuy wax sëriñ ahmadu muxtaar mbàkke moo nekkoon caatum xaadim rasuul xaddiim ñoo bokk waajur wu jigéen kon ñii tim ak ñeneen ak ñeneen ñi ngi foofu ci armeer yi ndaam yi tëdd néeg bi sëriñ tuuba seexul xaddiim fanaanoon ñaari at yàlla itim mi ngi foofu ci ndaam bant bi cheikh mamadul faadal ak kii di cheikh mamadul moustapha mbàkke daa wéer seen àlliwa yi itim mi ngi foofu ci ndaam néeg bi sëriñ ndaam abdourahman loo daa jullee ñaari ràkka yim sartante woon ak seexul xaddiim ngir doon ko wax bépp jullit wala bépp murit boo xam ne nii tooñ na suñu boroom moo xam ci murit ba njëkk a jébbulu wala ba ci mujjee jébbulu bis bu ko suñu boroom naree yóbbu ca geneen kër ga ma jaayanteeg moom néeg daa jullee ñaar ràkka yi itim ma nga fa néeg bi cheikh abdu xaadir mbàkke ganee àdduna itim ma nga foofu ci ndaam kaamilu alxuraan bu sëriñ tuubaa seexul xaddim joxoon sëriñ ndaam abdurahmaan loo itam mi ngi foofu ci ndaam kaamilu alxuraan ba sëriñ tuubaa seexul xaddim bind ko waaye soo ubbee kaamil ba seexul xaddim mi ngi wax na ci benn naarub gànnaar la ko jëlee kaamil boobu mi ngi ci loxoy njabootuk sëriñ ndaam abdurahmaan loo ba tey ci ndaam googu der bi sëriñ tuubaa seexul xaddim jullee woon ci géej gi mu ngi foofu ci loxoy sëriñ ndaam abdurahmaan Abdourahmane Lo rawatina ci njabootuk sëriñ Moustapha Lo sëriñ Ndaam Abdourahmane Lo daana def ci nekkinam képp koo xam ne nii dara dal na la soo ñëwee di ko ñaanloo der boobu lay xooj jox la der bi seexul xaddim moo ko joxoon sëriñ Ndaam Abdourahmane Lo di ko xamal ne bi may julli ci géej gi ci der bii laa jullee der bi bi sëriñ Ndaam Abdourahmane Lo génne lii di àdduna ci njabootuk soxna Muslim Mbàkke la mujj bi soxna Muslim Mbàkke génne lii di àdduna am na luñ ca daggoon dencaale ko ko bi sëriñ Moustapha Lo génne lii di àdduna itam am na luñ ca daggoon waaye li des ci der bi mi ngi ci xalifab sëriñ Moustapha Lo mu yore ku fa dem ñu wan la ko sëriñ ndaam Abdourahmane Lo bind na lii di ab téere téere bi mi ngi ci ciy nettali lii di càllal ak ndaam ngi ni mu mel maanaam ku sant loo naka nga def ba bokk ak sa moroom ba ci ngën gi mbindeef sallallahu taala alayhi wa sallam képp ku sant loo bëgg xam loo bokk ak sa moroom soo gisee téere boobu sëriñ ndaam Abdourahmane Lo bind daa ko xam ba tey sëriñ ndaam Abdourahmane Lo bindaatoon na beneen salaatu ala nabi méngale ko ci mi taxoon mu bind ko muy atum 1330 1935 ci gàddaay gi dëppoo woon nag 1917 1335 boobu la méngaleeg benn turu suñu boroom di ko ca kañ te di ko ca ñaan ginnaaw ba mu kañee ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim ba noppi ca salaatu ala nabi ga mi ngi doon ñaan suñu boroom mu may ko xol bi jaamam bii am di suufa sëriñ Ndaam Abdurahmaan loo xam ne ne jaamu suñ boroom bii di suufa lu ne la ñuy def ci kawam moo xam lu baax moo xam lu bon waaye dana dégg rekk ndax mën koo muñ xol boobu suuf am nag la doon sàkku suñ boroom may mën koo muñ ñu teewlu salaatu ala nabi gi allahuma ya haadi ya latifu ya salaamu ya shakur ya fattaahu ya alimu ya xabiru ya saljalali wal ikrami ya munamu ya mutafaddilu ya rafiu ya nafiu ya muhinu ya wahaabu ya rasifu يا فاتح أبواب الخير صل وسلم وبارك على سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه الغر النجوم وارض عن خديمه وخليله وحبيبه الشيخ البارح سيدي ومولاي أحمد بن حبيب الله عليه رضوان الله تعالى الأكبر وهب لي بجاهه كرما ولطفا ورحمة وتيسيرا وعناية وتوفيقا وتفضيلا وقوة الملائكة في امتثال الأمر وصبر التراب على عبادة العباد وأن تخرج من اعتقادي وأقوالي وأفعالي وأخلاقي وأحوالي كلها ظاهرا وباطنا kulla ma lam tardahu lii wa kulla ma lam taxtarhu lii bil xaali wal maali bila aafatin wala kadarin wa bil ijaabati jadiru innaka samihun xaribun mujibun sëriñ ndaam abdourahmaan loo nekk ku bari yërmande bari yërmande googu ak cofeel googu mu amoon ci jullit ak lii di taalibéy murit yi taxoon na mag ñu baree bari ci yoonu murit tudde ko lii di doom moom sëriñ ndaam abdourahmaan loo ñu ràññee ci cheikh ibrahima mbàkke ibnu sëriñ tubaa seexul xaddiim ndax foboon na ab taawam tudde ko ko muy sëriñ cheikh ibrahima sëriñ tuuba seexul xaddim moo woolu woon sëriñ ndaam abdourahmaan loo jox ko ko ne ko nekk lii di nijaayam sëriñ ma ndumbe mbàkke tudde na ko lii di doom ndax sëriñ ma ndumbe sëriñ tuuba seexul xaddim moo ko woon woon kii di sëriñ ndaam abdourahmaan loo di ko xamal ne yéen ñaar yéenay dendu ay kër ci àjjana looloo waral fi ñu leen denc ci armeer yi tuuba yi sorente wuñ maam cheikh ibrahima fall lamp tudde na ko ñeenti doom moom sëriñ ndaam abdourahmaan loo ndax ñoom ñaar ay woon samp kër génn nga lii di àdduna sëriñ paate silla nekkoon taalibe maam cerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru itam tudd na ko lii di doom kii di sëriñ moodu buso nekkoon taawu sëriñ mbàkke buso tudd na lii di sëriñ ndaam abdurahmaan loo doom sëriñ masamba jóob saam tudde na kii di sëriñ ndaam abdurahmaan loo doom sëriñ balla faali jeng tudde na sëriñ abdurahmaan loo doom ndax bi sëriñ abdu jeng balla faali ganee lii di àdduna sëriñ balla faali jeng dafa faboon tur woowu tudde ko sëriñ ndaam abdurahmaan loo Touba Seexul Xaddim xam na ne Serigne Balla Faali Jëng amoon na doom tudde ko Serigne Ndaam Abdourahman Lo Serigne Faali Jëng xam na ne tur woowu kii di Serigne Touba Seexul Xaddim yëg na ko faboon na lu mu am ci wàllu addiye yit ko ku baax ki Serigne Touba Seexul Xaddim di ko jégguloo di ko wax ne Serigne Ndaam Abdourahman Lo de ginnaaw bu soxna si amee gan moom laa tudde woon lii di tur wi Seexul Xaddim nee na ko Balla Faali kii di Serigne Ndaam Abdourahman Lo mat naa tudde lii di doom loolu nag bi ko mag ñi déggee taxoon na kenn ku ne ci mag ñi faboon abdourahman lo ñi ci des faboon nañ seen taawi taaw tudde ko sëriñ ndaam abdourahman lo ngir barkeelu ci kàddu googu seexul xaddim waxoon ne ku am doom tudde ko sëriñ ndaam abdourahman loo mat na koo tudde mu wéy des ndaam di liggéey di jàngale lii di alxuraan di sàmm ndono li ko sëriñ tuubaa seexul xaddim jagleel ci loolu la sax nag ba ni sëriñ tuubaa seexul xaddim génnee àdduna ci atum 1927 mu jël léppam jébbal cheikh mamadul moustapha mbàkke di ko xoole xaadim rasul ci atum 1928 ginnaaw bu sëriñ tuubaa seexul xaddim làqoo crise bi amoon mag ñi seet si woon nañ ko ngir bëgg mu wax ak ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim mu leen di xamal ne nañ maase dem ci Cheikh Moussa Ka ngir Cheikh Moussa Ka wax ak ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim kon lool moo waral lii di xarnu bi ndax sëriñ ndaa moo wax ak seex Moussa Ka mu def xarnu bi ngir jafe-jafe ya murit yi am mën a deñ sëriñ ndaam Abdourahmane loo mi ngi génn adduna ci atum 1943 ginnaaw bu maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke génnee àdduna ci at moomu fekkoon na ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim yéen ñett ñii de yéenay bokk wenn weer wu ngeen génn àdduna ay bisitim du ngeen ko sorile at ma moom menn rek lay doon moo tax bi maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke génnee lii di àdduna ca bisub alximis ba te ñaar fukki fan yaa ñeent ci weeru baraxlu ñu yëgal ko sëriñ ndaam Abdourahman Lo la wax ne dëkk bu maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke ne ko tudde defu dara ndax kat sangam ba xaadim rasool noonu leen ko waxe woon ci suba sa di ajjuma ja ci la sëriñ Mor Absa génn lii di àdduna ñu teg ci samedi dimanche altene talaata sëriñ ndaam abdourahmaan loo génn lii di àdduna sëriñ ndaam abdourahmaan loo mi ngi génn lii di àdduna bisub talaata ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weer wii di weeru baraxlu ci atum 1362 ci gàddaay gi talaata ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weer wii di weeru baraxlu ci atum 1362 ci gàddaay gi dëppoo mardi 31 août 1943 mardi 31 août 1943 ci dëkk bii mu nekkoon seexul xaddim daaloon ko fi di ndaam daaru xalimul xabiir sëriñ mbàkke buso lañ woolu moo ko taxawu moo ko jullee bi biñ koy jébbal boroomam moom sëriñ ndaam abdourahmaan lo kii di cheikh mamadul moustapha mbàkke cheikh mamadul faadal mbàkke ak sëriñ basiiru mbàkke ñoo mujj ci ay loxoom bi ñu noppee sëriñ mbàkke sa seede lu am solo ci ginnaawam wax ne de bu fekkoon ne am na kenn ku muy ñee ci àdduna jëmm ji tëdd tey la ndax kat sëriñ ndaam abdourahmaan lo musta yëg fenn fu mu moye ndigalul ku baax ki sëriñ tuubaa seexul xadim ko yàlla fayal foofu mu tëdd yu samba sëriñ mandumbe xabbaan sëriñ daam abdurahmaan loo ay xalifaam nii la tëdde sëriñ moodu loo moo ko njëkk a wuutu ci atum 1943 ba atum 1974 ñaareelu xalifa sëriñ daam abdurahmaan loo mooy sëriñ basiiru ci atum ba ñetti weer rek la toog toogaayu sëriñ daam abdurahmaan ñetteelu xalifa sëriñ daam abdurahmaan mooy sëriñ abdu say ci atum ba atum ñeenteelu xalifa sëriñ sëriñ ndaam abdourahmaan loo mooy sëriñ mouhamadu loo ci atum 1989 la ba atum 1989 juróomeelu xalifa sëriñ ndaam abdourahmaan loo mooy sëriñ useynu loo ci atum 1989 la ba atum 1994 juróom benneelu xalifa sëriñ ndaam abdourahmaan loo sëriñ moustapha loo la ci atum 1994 ba 2005 lii di doomu sëriñ ndaam abdourahmaan loo yu góor yi jeex tàkk ci kaw suuf sët yi tàmbulee seen maam ja sët bi njëkk wuutu maamam mooy sëriñ Mansour Lo ibnu sëriñ Modou Lo ibnu sëriñ Ndaam Abdourahman loo ci at mi di 2005 ba 2006 la toog xalifa ñaareelu sët bi wuutu kii di maamam mooy sëriñ Basiiru Lo ibnu sëriñ Modou Lo ibnu sëriñ Ndaam Abdourahman Lo moo fi nekk 2006 ba nëgëni ñu koy ñanan suñu boroom guddal aw fanam te wéral lii di ay cëram te yàggal ko ci toogaayu sëriñ Ndaam Abdourahman Lo ak mbooleem ay rakkam ak ay doomam ci darajay seen waajur wa ak seen maam ja sëriñ Ndaam Abdourahman abdourahmaan loo am na bis buñ koy fàttaliku muy fukki fan ak juróom ci weer wi di weeru tamxarit di guddi gi sëriñ tubaa seexul xaddim fanaanoon foofu ci ndaam guddi googu di guddi fukki fan ak juróom ci weeru tamxarit la njaboot gi jàpp boole waalo ci nag di ci fàttaliku waale ka leen boole ci seexul xaddim di sëriñ ndaam abdourahmaan loo ci dëkk boobu ko seexul xaddim dëwloon di daaru xalimul xabir ñu gën koo xam ci ndaam ñuy ñaan ci dara jay sëriñ ndaam abdourahmaan loo jàngale katub sëriñ tuubaa seexul xaddim ba jàngal lu ci njabootu ku baax ki sëriñ